man dem suñu kër après sama goro bu góor bi moo doon ñëw di wax ak man sama goro bu góor bi di ma woo telefon pour ñuy pour ma ñëwaat mayaat ko sens léegi ma ne ko ñëwal sama papa ngeen waxtaan léegi mu ñëw sama papa bi mu ñëwee sama papa léegi sama papa ñu war a am doom yépp benn la neuf mois la koo fu mu daan sama kii bi daal man dañ maa woo juruma doom ji dañ maa woo téléphone wax ma ko kooku daan ne ko kon baax na ëllëg lu la si fekk rek na nga xam ne yow la mu ni ko waa boobaak léegi nag maa ngi koy topp léegi sama policier bi woowu daf maa wax ni ma am na benn test bu ñuy def léegi sama policier bi wax ma benn test léegi test boobu après ma ne ko dinaa ko laaj sama sage-femme bi ma laaj ko sama sage-femme bi moom sama sage-femme tamit moom tamit dafa baax trop woo woon na sama jëkkër bi sax wax ko mais sama jëkkër bi faalewu ko léegi léegi sama sage-femme si guddi la ma woo mu ni ma test bi trois cent cinquante mille la léegi nag trois cent cinquante mille yooyu sama papa papa rek laa gis si ko xam ne daf may jàppale sama papa amul euh, mag la te amul doole boobu léegi man na test bi euh, moom moom laa bëgg pour ñu jàppale ma si képp ku ma si mën a jàppale rek pour ma suturaal sama bopp lii mu may jiiñ mu leer si kanam ñëpp ndax man xam naa ne maa nekk si dëgg waaye pour mu gën leer laa bëgg rek képp ku ma mën a jàppale si test bi ba ma def ko balaa euh, bu ma amee doom le vingt huit janvier trois cent cinquante mille moom la moom lañ ma laaj si test bi bëgg naa kaa def torop nag képp ku ma si mën a jàppale test bi moo ma ñor bi ma demee woon foofu di jëli sama yére yi si début bi noonu may dem di jëli sama yére fekk ñi jël sama bagage yépp ñu tëj ko jotuma ben bagage ay yere dong la fa jot neena mom day jaay darab sama jëkkër bi darab bi mu jël ko denc ko mu ni moom moo ma ko da koy jël denc ko neeg ba lal ak coiffeuse mo fa nek ak tele ak ventilo neena aw mo fofu dara aw mo ben bagage fofu ñom mom ak sama goro bu bi ñoo tej yépp sama dom bu goor bi dañ makoy neub sama dom bi suma ko gisee rek sama gora bu goor mo joge Dakar ñëw Touba sama gora bu goor bi moko ko fay andi pour ma gis ko chaque jour dañuy dañ may daawloo si sama doom doom ji sax mujjee na bàyyi ko noon bàyyi ko noonu bu sama tontoo ñëwee rek dinaa ko gis mais test bi moom bëgg naa ko ma si jàppale torop lool rek